bërki biig la ANACIM ak ñi gàlloo lu soxal ak qualité ngelaw gi ñuy nooyi ñoo ko daal xamle mu mel ni nag ci terrain bi fës na lool. bile soxna moom nag palangam yu bari daka xoolaat lu ko waral rek moo di jamono ji. climat bu mel client yi war a génn ñëw jënd li ñuy jaay duñu génn te client yi ñun saa nu gis client yi xam nga ne suñu bagage yi du dem bagage yi dañoo mujj di ko lalli sax dem di ko fati appareil respiratoire maanaam noyyikaay yi ñoom nag poussière rek la ñu daal di ragal waral sénégalais yi di ci fàggu mu suivre météo ñu ni tey dina am benn poussière boo xam ne day ñëw mieux vaut ñu masqué mais aussi depuis depuis dama xaw grippe dañuy def verre teg ci benn kaks nii. kon liggéey bi daa laaj loolu dañ koy def nii mais ba léegi affaire yi da gis sax da ngay toog yenn saa yi di sëkkat sëkkat boo xam ne gaan mooy loolu. su ma takkee masque ma ñëw toog ma ñëw génne bagage yi ma ñëw lal su ma gisul lu ma xam aussi ma laal li njaay mi dem ñibbi kër ga avant tout santé daal. loolee nag daa di wundu njaayu masque daa di jar lool naam nag prix bi fa mu nekkoon rek la daa di des. ku seeroon la duudi. Eh, kono masque on joni eh, ngelaw bi nu ne lañ ko mën a yëgee suñuy masque dañ koy gaaw a jaay fii ak ngelaw gaa ngi bëre day gën a doxal suñu liggéey njëg li nag fu mu nekkoon rek la nekk fukki dërëm lañ koy jaay woni toon prix on toowi cent franc mi yeeri leeraay gi ak qualité ngelaw gi dina wàññeeku lool fii ak suba digg bëccëg ña ko xamle moo di ñi seen xam-xam màcc ci li ni mel waral ñuy daal di ñaax askan wi bu ku nekk daal moytu ci nim ko mënee